ayca ayca ayca arbitre bi sifflé na mbokk yi dox ci diggante Ndiol ak Sakal numéro 2 Ndiol Diamono écurie Rebeuss Sakal numéro 2 écurie Diamaguène Sicap Mbao Sakal moo la féetee ndijoor Ndiol Diamono moo la féetee càmmoñ ñaari xale yaa ngi amba en arrière amba en arrière pirip xeex bëre daan ñëppi waaw waaw loolay làmb xale sàkkal numéro 2 jiital tànk càmmoñ njool jamono jiital tànk ndijoor njool jamono na xam njool la méngoog jamono daw nañ daje daw nañ na njool jamono tëru na ko ndengeñ na ko njool da ko ndengeñ njool da ko ndengeñ ci xabal na ko sàkkal bañ na njool lu mu naraat ma ngay dóoraat Njool a ngi daa bëgg sàkkal siggi Njool a ngi dóor sàkkal fayu na sàkkal fayu na da ko bëgg a bi ma ngay dóor na koy berkit ku ya dal na sàkkal Njool Jamono sàkkal deux Njool Jamono sàkkal deux Njool Jamono sàkkal Ardo Njool Jamono dem na Ardo Ndiol Diamono dem na Ardo Ndiol Diamono dem na Ardo ak Ndiol Diamono ndeysaan ñu ngi noonu Ndiol Diamono taxaw na fi mu taxawaatoon mooy càmmoñ Sakel 2 taxaw na fi mu taxawaatoon mooy ndijoor dem nañ arde ba ñëwaat Sakkal Ndiol Jamono Sakkal Sakkal dóoraat na Sakkal dóoraat na kubu dal Ndiol a ngay fayu Sakkal Ndiol Sakkal Ndiol dóor na xeex dóor bu daanu mbaa du am daw na jàpp Ndiol daa bëgg a Sakkal daa bañ Sakkal doo ak Ndiol Jamono Ndiol fàqat na ko Sakkal bañ na Sakkal bañ na Ndiol jamono Sakkal Ndiol jamono ak Sakkal Ndiol jamono Sakkal ñoom ñaar ngi noonu Ndiol jamono ak Ndiol Diamono Sakal Ndiol Diamono Sakal jàppante nañ dara xewagul Ndiol Diamono Sakal Ndiol Diamono Sakal Ndiol jamono sàkkal njool jamono sàkkal njool jamono sàkkal njool jamono sàkkal ñu ngi jàppante ba tey dara xewagul njool jamono sàkkal Ndiol Diamono Sakal lan moo nar a xew Ndiol Diamono Sakal daan na ko daan na ko Sakal daan na Ndiol Diamono Sakal daan na ko Sakal daan na Ndiol Diamono